maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di kontaan ci teew fi di nuyu nag sama sœur sama xarit ku engagé wu ci président Macky Sall muy Zahra Iyane Thiam une dame très engagée une dame qui fait la fierté du parti la fierté de la coalition mais aussi la fierté des SICAP. dama buggoon ñëw ànd ak moom campagne mais bi ma ñëwee tate pool bi Zahra fii mën nañ fay am yaakaar xam naa ni liggéey nga xam naa ni li la président sant def nga ko xam naa ni dimanche bu soobee yàlla waa SICAP dinañu fay président Macky Sall jaarale ko ci yow. amiin incha allah. SICAP dama am histoire aussi ak SICAP. bi ma ñëwee fekk naa fi sam benn xarit Mbagnick ñun ñoo duggandoo école fii à côté ginnaaw Liberté ginnaaw cinéma Liberté kooku xam nga yàgg na. donc bu ñu daan foos it fii lañ daan ñëw ci jardin Sika bi fii. ak ñoom Moulay Bass ak ñoom Moulay Moulay habite dem si yàlla Pa Ibrahima soxna bëgg naa dem këram léegi mi ngi fii ci ginnaaw pour wan leen ni xam naa Sicap mais Zahra xam ngeen ne ay waajur lañ ko fi fàggul lu bëree bare bëri mën naa bañ a sori ci considération yooyu ndax daf ñuy delloo ci leneen mais Zahra mënul mel neneen lu dul ni mu mel nii mais ce qui m'impressionne mooy ni Zahra bëggee Sicap ce qui m'impressionne surtout mooy programme bi nga xam ni dafay mener Sicap vers l'émergence bi nga xam ni Zahra def na ko à l'instar de tous nos autres candidats, Benno Bokyaka, Zara a fait un programme cohérent. Surtout pro programme, de faut le programme Ablaye Diouf saar ci ville bi. loolu yëpp dugg ci biir plan Sénégal émergent bi président def. kon jàppale Ablaye Ablaye Diouf Sarr mooy jàppale Zara mais jàppale leen ñoom ñaar. mooy nangu ni président Macky Sall bi ngi jëmale réew mi fu baax kon loolu kenn waru ci jiitu waa SICAP je vous ci li nga def ci microfinance je félicie li ngay defal jigéen ñi ñu ngi koy dégg ndax Sénégal ñu ñëpp ay mbokk lañu boo duggee ci ñetti kër ñeenti kër defal lu baax rek dinañ ko yëg foo ko yaakaarul woon loolu mooy particularité Sénégal ñu ñëpp ay mbokk lañu ma jaaroon fi tey nag pour ànd ak moom. mais dama ko ne Zahra da may bàyyi ma dellu parcelle ndax fii moom mokk na kon nañu da da may da da ko bëgg sax yóbbaale mais loolu daf ko bañ ndax noonu lañ daan def nag maak moom dem ba biir parcelle jaar Grand Yoff pour qu'au soir du 23 janvier ñu mën a assurer le président de la République une victoire vingt sur 20 20 sur 20 moom mooy bëgguñu opposition bi am sax benn commune 19 communes yëpp dañ ko bëgg a gagné bii moom amatuñ ci problème du fii mooy problème bi buñ ci boolee ville bi muy 20 kon Zahra on compte sur toi dinañ la jàppale président ngi lay encouragé mais yaa ngi ci yoon wi il ne reste que 4 ou 5 jours et au soir du 23 incha allah dinañ fi ñëwaat féeteeg yow e la victoire de benn Bokk Yaakaar à si SICAP. mais aussi la victoire de Benno Bokk Yaakaar au niveau de la ville de Dakar je vous remercie. booy waxtaan ak ay politiciens da ngay mën wax li nga xam yëpp moi j'ai pas de doute que sur l'étendue du territoire Benno Bokk Yaakaar va sortir très largement majoritaire j'ai pas de doute le bilan mais aussi la qualité des candidats que nous avons milite largement en faveur de cela. Maintenant, Dakar une particularité. Dakar est la capitale. Et comme toute capitale dans le monde, Dakar est difficile. Mais depuis 2014, Dakar est contrôlé par l'opposition. Il faut quand même leur demander le bilan, leur bilan. Mais en 2017, la majorité a gagné Dakar. 2019, la majorité a gagné Dakar. Il n'y a après les multiples réalisations, mais surtout la qualité de nos candidats, que l'on puisse douter une seule fois qu'on va perdre une seule commune. Cependant, cependant, nous sommes dans une élection. Jusqu'au dernier jour, il faut se battre. Il faut se battre même le matin en allant voter. Parce qu'une personne peut changer en cours de, de, de route et il nous faut capitaliser le maximum de voix possible. Mais il n'y a pas de doute. Il n'y a Maintenant, nous avons moo tax dañuy liggéey fii liggéey parcelle liggéey Grand Yoff liggéey feneen Gorée fépp ce qui nous intéresse c'est 20 sur 20. je vous remercie. votre prestation c'est ça a été un match difficile nous aurions souhaité avoir une victoire mais je pense que ce qui est important c'est de se qualifier aujourd'hui le Sénégal va aller en huitième de finale c'est déjà important et certainement euh, l'arbitre enfin l'entraîneur apportera les mesures de correction Parce que ce que l'on veut au Sénégal cette année, c'est d'avoir la coupe, mais nous sommes en sport. Et les, lois du sport sont des voies insondables. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'accompagner l'équipe jusqu'au bout et l'équipe est en train de bien travailler je vous remercie. bu baax ci teewaayu le ministre Ba fii ci SICAP Liberté coordonnateur national de Benno Bokk yaakaar naa monsieur le ministre bu fi ñëwee daf fi war a ñëw ndax SICAP la bokk ndax ñëpp xam nañ ne diggante SICAP ak Grand Dakar benn la mais bu fi ñëwee aussi daf fi war a ñëw ndax dafa bokk ci xeex bi nga xam ne dañ koy xeex mu tàmbali woon ko def si lu rëy mais surtout maîtriser terrain bi kon fu mu ñëw rek day mel ni sondage ci ñun day mel ni ay primaire te kàddu yi mu wax dalal na suñu xel mais li ñu gën a jàpp ci waxam mooy bu ñu naagu nañu liggéey ba jour élection yi loolu dinañ ko def en tout cas ñi ngi rafetlu taxawaayam ndax xam nañ ne mi ngi liggéey ci élection yi parcelle googu mu nekk am nañ ci yaakaar bu baax ci moom mais am également yaakaar ci moom ci dakaar te gis nañ taxawaayam ci wetu le ministre Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne mooy candidat de la ville dakaar loolu aussi rafetlu nañ ko bu baax en tout cas monsieur le ministre ma lay biiral ne waa SICAP Liberté adhéré nañ ci programme bi nga xam ne proposé nañ leen ko mais surtout dogu nañ ci jàppale la coalition benn Bokk Yaakaar et euh, en tout cas amuñu xel ñaar ne ñoom tànn nañ ba pare li ñu wóor mooy SICAP Liberté tànn na ba pare li des mooy ñëpp xam lan lañ tànn au soir du 23 janvier te comme niñ ko waxee li ñu waroon def def nañ ko donc ñi ngi xaar résultat bi ñuy war a xaar.